àdduna man Adji Kara gën ma xam ki ma vraiment ren maa ñëwaat fii toog ci plateau bi nii comme ni ma leen ko waxee woon rek yéen ñi nga xamante ni bi yenn saful suñu télé bi duñu faale di ñu xool di toog topp ñu fas yéene leen indi lu bees lu bees tàq waxoon naa leen nag dama ko yekk fu ma ko yekkee fu mu doon li ma toog fii laa ko yekkee ci télé bii ñuy wax zone 7 TV fii laa ko fas yéenee yekkee ma leen woon nag. na ngeen téye seen commande yi bu leen xool fenn bu leen zappe fenn fii rek lay doon ci zone 7 TV te fa séene naa nag séddale leen ci nag bu leen dara rek ci nag ngeen toog tuuti ngeen taaxeerlu ñu indi leen lu bees tàq li nga xamante ni moom la waa gëm sa bopp indi maman Mbaye salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Arouna man ñaf maa ñëw indi leen Fi tak nak, nag si télé bi lañ koy fii lañ koy seetaanee te fii lañ Wow, wow. Gani ma? Nyaf. ganima ñaf ñaf eh, wati na Wa ki mooy e ñaf moom nee na lu saf sàpp le indi moo mu day wax pare da ne ñaf kon nak yene a ko déggandoo Mama mbay ñafa ngi nii toog waaw ci kanam ñu élément bi fekkee élément bi pare na euh, Babacar bu fekkee élément bi pare na nga nga tegal ma ko ma yekkal sama askan wi li ma indi ak waa Mbambilor. waaw kay yaa ngi am foofu xale bu pare bi waaw kay maa ngi nii waaw sama waa. yaa ngi boy am na lii si kër gi. kenn new non ba pare ma gis bu baax nga teg sa ay affaire looy def tey. ceebu ginaar bu baax laa bëgg. non dawal ah. eh, ah, mhm. la wax lii. xam nga lii problème bi da nga xam li ma bëgg nga ma koy defar. dégg nga lii. comprendre nga. lenn laa bëggoon après. nekk ba maa ngi. man yow laay wër te xam nga maire bi daf ma laa dénk. te bëgguma nga am dara lu la metti. parce que xam naa ne gars yi fi nekk. dañuy te man yow sama diggante yow ko ko bëgg a yàq ma ciy de dëgg la jaral nga ma lu ne. dëgg la lay xoolal maa ngi si biir. maa ngi lay fekk si léegi. maa ngi sama waañ parce que yéen def ceeb bu ginnaaw bu baax bu am jom bu mu bari doole eh. maa la wax lii lii da laa fas def xaaral ma ñëw dem ci frigo bi naan te génn sama ginaar génn samay légumes eh. waaw def ceebu ginaar bu am doole. Eh. waaw kay dëgg neexul mi yaa ngay am foofu dëgg lii ëpp naa dëgg lii yow caaman nga saa ee eh, waay samba looy dangu looy daw ee eh, waay neex muy tëb looy puus waa miyaa walla man sama bëri dafa neexul miyaa moom la sax de muy wokk dox ee eh, waay samba yow de xam nga sa toogaay bu ñaaw tax ngay puus yow yow billaay yaa foofu yow yaa foo leena man sa yaay yëgul lii waaye man maay ki koy wax ma yow sa cim laay xeeñ ana togg aña dugg ci biir néegi góor baax na sa ndey new lii la lii la lii la tubaab yi way la saa ne la casa n'est pas là les souris dansent yéen a ngi danse man maa ngi koy wax sa yaay seen lu leen lu leen ne dafa ngeen di rafetlu. waaye li nga mel ay sàcc ni eh. ah. mais vraiment rek donc. waaw ah, waaw bu mag bi. barke Rasulullah. ni ngeen def nag. ñoo ngi si jàmm. namm naa leen. waaw sant kon yéen xam ngeen vraiment leen la. bu mag. kan moo leen xamul kan moo leen ko wax. ñun ñoo la xam bu baax man de man dama laa xam kii bu la xamul noonu xam naa la. man yow yaa daan day waari sekk nii. <laughs> waaw oui ma. kër gi daa mel ni mu ngi doon toj de. yuuxu ñu dégg la la. kër gi dafa waxuma la toj waaye dafa maam. cën. ku ko gas. ki ka gas. mooy waaj yi ne ci néeg bee te def barbe yi. borom bomb ya <laughs> borom barbar yi. moo ma waxal nànk. ma nga jël xale bu jigéen bi. mi yaay teg loxo meex mu teg taat. muy teg taat muy galgal am na fa galgal am na fa. tequ tequm biir. ah tequm biir am nga. defe naa bu biti sax la de. wuy sa aywa. gis nga nag ñun nan lañ sonné si kër gi. Hmm? yaay moom loo wax mu ne ñun saay-saay yi. looy wax ne. lu la sonné. tey de tey de saay-saay baa ngi ne. boo waxee ne man lañ ko si bi boo waxee ñu ne raagaay bi mu mel ni ku lekkul. bilaay. dama gis nga dama lekk. xanaa xamoon olof Ndiaye def ni yuuxu day jub fuñ ko foogewul. te muy dëgg. tey jii si yaayam ji. Ah. li mu jël mbir mi teg leen ko yaakaar yéenay saay-saay. Ah. saay-saayam baa nga ne muy dénk doom. xam nu ñuy def. yaay ji daa génn papa mm. bu ñëwee rek ñun ñoo la jël sa seen ba sa kër. di nga woo si leen ma ma nettali yaayam li ma gis maa ko gis kenn nettali. yaay suñu tey mooy demal. <laughs> eh eh way ndaw. Hmm, yow nee naa la nga topp sama ginnaaw deux fois du jëm nii nee nga jëm. donc déedéet non. soo si caay sa saw yi la rek. oh ma en parlant. bu ko ko ji. bu ma dara. wóo. waa mbaam mi loolu lii laa leen indi lii laa leen doon wax nag nee naa leen toog leen ngeen xaar li ma indi ma yekkal ko ñi ko jot na ci ci ration ba ngeen. waa gis nga nag li daal indi moo tax euh, jamono bi ñu nekk nii euh, ci wàll locataire yi laay wax ni yor sa doom bu jigéen mu ne ci biir kër gi nga luye ay góor ci biir kër gi di taamu sa doom bi dugg ak fu mu warta dugg doom bu jigéen alalu goro ci lex bi doom bu jigéen day toog ci pooju ndeyam waaye yu jël sa doom di ko dénkaane ana koo koy dénk locataire am na nag locataire yu bax duma ni ñepp la nag dëgg ndax nit lu yene nit mu doonu chamiñam takal la ko doom yobbu ko mu sey yëkkati alalam def ca nit lu yene nit locataire ba viola doom ëmbal ko ni tir daw dem dem yoon kon du ñepp la te li bëri nañu mu dal nak am nañu dund safane bi am nañu dund mbégte bi ma di leen wax nak ku ci yor sa doom bu jigéen na nga ko surveiller bu baax a baax a baax ndax doo yor doom di ko yar di ko yar mu toll ci néegu sëy nga naan ko nga koy taamu foo koy dénkaane booy de nag ma xoolal diw bu ma bu ma waxal ak nii del wax ak ñii noonu nag looloo indi lii tey yaay jee ko may faveur ba tax mu wóolu kooku kooku rek lay toog néegam yaay ji day nelaw sax ni ko demal toog néeg diw te bu ngeen ñu toppee di ngeen ci xam dara bu ngeen ko ne di ñu suñu zone 7TV bii di ngeen gis xale bii fi muy mujjee waa ji incha allah rabbi chaque jour nag daan leen bees waaw. moo tax jamono ji ne naa leen yuuxu dina jóge fu ñu ko foogewul ne neen dem ba ci kanam tuuti waaw maman Mbaye lii xale bii def nii tey jii yow bu doon yow di ko def. man. Hmm. sama yaay du mu mës a bàyyi si benn kër. Hmm. may nekk góor ñaan ma xaayaa la def. lii rafet na wala rafetul. rafetul benn yoon. mu war a togg añam bi togg añam añam di xeeñ. waaw léegi bu yàqee ñulu bu ñeer. waaw maa ceeb bu xam. waaw xooñ bu xam. waaw loolu yëpp mën na see nekk. waaw ndax toogul ca waañ ba. waaw nekk si déggu góoñ. loolu baaxul. kon nag ñoo ko gisandoo ni da la demee moo tax ñu ne sant ñuy feye doom yi jigéen ñi dañuy feye ci suñu doom yi jigéen bu baax a baax a baax. te booy luye te ñu xoolal ki ngay luye waaye ay waaye nit ki balaa ngay xam ki ngay luye ku ne il faut nga dëkk ak moom ndax nit ñi façon bu ne lay duggee ndax bu doon da ngay xam nit ki sax ba pare waaye il faut mu dugg ba pare nga xamante góor ñi kay na ma yàlla jéggi fi ñu ma ko fa wax ñoo war a gore ba dee ñoo war a gore nag ba dee wax dëgg yàlla nit boo xasee ba dëkk ak moom muy jigéen boo ko bëggee te yàlla def nga bëgg ko mu war naa mën a doon soxna bu ci nekk di ku nekk di foo duggal wax waa waajuram mu may la ko waaye jàpp doomu jàmm di ko di ko koccati di ko koccati di ko koccati ba mu xëy ni wóol nga daal di tëj sa néeg daal di bàyyi lu yaas ba dem sa yoon ba ko ba sa mbalam mu yaakaar ni jànq la yor ndeket géeg la yor ci biir këram lii rafetul rafetul suñu càmmiñ yi déedéet ñu déedéet ñu dimbali déedéet ñu dimbali yéen suñu càmmiñ yi déedéet ñu dimbali ci suñu doom yi ah nit boo xasee ba dëkk ak moom bu ne danga koo war a jàppee ni sa doom wala bu dee cofeelu cofeelu mbëggeel la caa nekk jàppee ko ni soxna yow demal ca waajur yi ñu ñu may la buñ la mayu nag nga xam nooy def waaye jàpp doomu jaam wéet ak moom ci néeg ndeyam dem liggéey bàyyam dem liggéey nga ni laakaar na ne pas là les souridances ah maman waaw ndax doom bu jigéen paset la foo dem yow ko dëggantaan dëggantaan wax na dëgg de doom bu jigéen poset la de waaye di am na fu poset bi di diisee doo mën foo jëm yóbbu ko de. waaw ah, bu poset bi demee ba mujj gi nga doon mu doonu saak <laughs> doo mën foo jëm yóbbu ko de ah maman. waaw waaw boo ko mën ah. doo ko mën a yóbbu day diis. day diis si yow loolu. ah doy na waar de ah waaye lii métti na waaye. métti hmm? daal nii rek nii rek nii rek lii nag laa indi nag bëgg naa nag incha allahu rabbi

yow maman Mbaye yow fi ne nii instant bi yow koo war a waxal fi mu toll nii. koo war a waxal. Mm. xanaa kooku xale bu jigéen boobu rek. li mu def. li mu def kay daa ëpp. dafa ëpp de dalaa metti nii yow bu doon yow sa yaay bàyyi la fi génn dem góor di la woo ci biir néeg bi di dugg. doo dugg. déedéet dugg. Mm. loo koy wax su boobaa. dama naan ko. man du ma sa morom xale bu ndaw laa tollooguma fu may dugg néegu góor. ah gis nga de loolu for na waa lii lii nag lii lii Babacar mi nekk régi sax xam na ni yow li nga wax dëgg la ah si xam na ni wax dëgg la ah. loolu bu dul dëgg ay fo la xanaa. moo tax nag ma bëgg nag nga fulla jii nga wane nii nii nii ba nit ñëpp dina seetaan boo màggee na nga gën a wane fulla boobu xale bu góor bu la woo daal ni la maman Mbaye kaay nee ko mukk dégg nga li ma la doom bu jigéen day sàmmale ndeyam waaw kon euh, suñu plateau ba mu nice dafa mel ni rafet na de ci li ma yaakaar gannaaw bi ñu ko def ba pare ñoo ngi nuyu suñu directeur borom bi ndax moom laa waroon a jëkki sax waaye damaa tardé maa ngi nuyu Matar bu baax a baax a baax di ko ñaanal télé bii yal na ci yàlla def ndam di ko ñaanal mi wut si télé bii yàlla ko suñu borom may kàttanu yàlla ndax xale la am na jom ba mu amee télé bii ñëpp naan fu ñu koy yóbbu fu ñu koy yóbbu mu ni man fii laa koy indi Bambilor jox ko waa Bambilor ak képp ku nga xam ne war nga cee jot incha allah na ngeen toog xaar télé dina egg fi ngeen bëgg mu egg waa du nuyu monsieur si suñu directeur programme su ko defee nañu yàqu ah, xaama wuy ki ci ligne bi waa kookal la noonu. alo kooka la noonu. waaw maa ngi nii rek. ça va bien. waaw kooku. ah neex na. waaw ma ni nga ni neex na. ah neex na yéen koy seetaan. kontaan kontaan naa trop. dégg nga. waaw mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. bi. dëgg neexul. waaw loolu ngeen rek. bëgg nañ bëgg nañ jour. chaque mercredi. ci ci heure heure bii. ngeen ñuy topp di ñu xool toujours ñu leen di indi lu bees. waaw tey ji tey amin waaye tey ji xale bu góor bi li mu def nii. Mm-hmm. nit mën na luye borom jabar sax mu def ko. waaw loolu jub nag moo am solo. waaw loolu la nit daal dafa am solo. waaw dafa fekkee. Oh, am nga amin waay amin waay. Mhm. amin amin kontaan naa soxna si. kontaan naa jërëjëf de dee leen kon ne di ñu topp rek dégg nga chaque chaque mercredi naa leen indi lu bees. incha allah waaw. Eh, jërëjëf waay ci woote bi jërëjëf. ok merci. waa gis nga de waa nii la nag. maa bëgg na ngeen topp seen seen bi rek waaw lu bees sàqal na fii laa koy yekkee ñu mën ko waxee léeg-léeg ñu topp dañu suivre dañu seetaan fii ci zone 7 TV numéro baa ngi noonu tous les mercredis bu ngeen ootee di ngeen ma fekk ma toog nii jàkkaarloo ngeen indi leen li ngeen bëgg te nag fu ne laay fël nag fu ne laay fël tey mun naa fël fii ci góor gi célibataire bi bu subaa ma fël ca leneen waaw bu ngeen jàpp nag célibataire rek laa fi nekkal non ñëpp laay laal waaw yooyu ngeen mer nag waaw waaw ma delluwaat ci sama wax di gërëm Babacar ñu nekk rési nag waaw Babacar rési di gërëm sama caméraman ñu koy wax caméraman Boubacar Boubacar maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax di la wax ni lañ sa image seet na macha allah kon maa ngi nuyu euh, maa ngi nuyu sama borom kër maa ngi nuyu sama borom kër bu baax a baax waaw di di fa seenee tàggoo génn nag fii ba beneen nekk incha allah maa ngi gërëm sama borom kër di gërëm sama rakk nday mbay ak jëkkëram mbay ji di gërëm Ousseynou Mbay Babacar maa ngi gërëm ñëpp di gërëm Assa Baara di jàll Souleymane Mbay ak jabaram Adama waaw di gërëm sama doom Yacine bébé Yacine di gërëm sama doom maman Mbay mi toog waaw di leen wax dig daje ba beneen mercredi maman yow looy tàggoo ah man daal maa ngi gërëm Babacar sama première fans ba mu ñëwee moom ak caméra lu rafet Ya. ngi koy gërëm di ko sant bu baax moom daal ak ak Boubacar xam nga waaw Boubacar tur bi faat ak Boubacar tamit moom tamit doo sa yaay ma lu rafet maa ngi nuyu sama yaay bu ndaw Yacine Sow koy nuyu bu baax di nuyu Ndeye du may mari Ouzin Assa Wuri Nday Mbay alee ni nuyu bu baax ak ah, za Baye Za ak Baye Za sama rakk mu ndaw nuyu mama mama ak ñoom ñoom maam Matar ak Basiru waaw kon ñu ngi ñu ngi tàqali ko yéen fii ba beneen mercredi incha allah ba beneen mercredi incha allah man ñaf maa ñëw